ginnaaw mu ñor la nga duggal ko so bop nga daan ñew parce que yene la rek fas yene la serigne touba ba mi wote magal ne non ñom ba nu demee na ba old up jamono serigne fallu leen commencé won tek ay affaire parce que so leen xolé serigne fallu ñom ñoko ray fofu foofu leen commencé fen sa di old up ba nan nan ñom ño andi kaaba gi xam nga andi nen mak fofu non touba parce que serigne serigne fallu sax mom ci bopom bëggoon na dem mak do doon aji dafa bëggoon aji mak la c'est la si gis na jamono serigne fallu fofu la lu bari tourner ñoom seen bopp ñoo ko rey ñoo ko posone mu dee parce que lu tax sëñ faalo ñu bëri soo doon ñëw di ko siyaar danaa leen baa baa jaar nga njaareen baa siyaar nga baa jaar nga njaareen ñoom bëgguñu woon ñu xam ni que Serigne Touba ñoo ngi ko suul njaareen moo tax nag léegi problème bi jub fale gars ak si Touba ñu koy ava advice advice mu bañ a dégg <coughs> problème bi jug problème bi jug gars yi nii du ñuy sóob nga munu dara laa ñoom ñoo ko rey ñoo ko wàccee foofu leen commencé wëlbati affaire bi. soo fu leen commencé wëlbati affaire yi